an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala adlu saa xayrun min ibadati sabina sanna ki yàlla yónni wax na ne benn waxtu boo xam ne waa ji maandu na ko moo gën juróom-ñaar fukki at soixante-dix yoo xam ne waa jang koy jaamu yàlla mais fekkul mu maandu kon benn waxtu boo xam ne waa ji jub na ci xoj ci maandu ci rek lam cay def lam ca mën a jëlee soo ko comparé ak soixante dix ans yoo xam ne waa ji mu ngi koy dund mais ci ay luxur la ko dund e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waxtu boobu moo gënal borom bi subhanahu wa taala kon jar na bàyyi xel ci waxtu woo xam ne sa heure liggéey jot na wala sax jamono bi ngay féex te am jot xëy na defoo dara ci liggéey waaye waxtu woowa man nga ko euh, remplir ci ay maxaasin mooy yu rafet waaye pa ngay toog di dugg ci domaine yoo xam ne wóor na leen ne lii maandu te amut ca wala ngay xasdoo jaamub yàlla wala ngay xalaat pour yàqal jaamub yàlla kon ca liggéey ba ba nga féexee yëpp ci am rek e, e, maandu daal amul benn minute boo xam ne dugul ne moom soxla nañu ko foofu mais amul benn saa benn heure buñ ko soxlawut itam mais en même temps amul benn bés buñ ko soxlawut rawatina semaine yeeg weer yeeg année bi